mais réew mi buñ ko fowee ay genre Sonko ay genre Bougane ay genre Déthié Fall ñooñu ñooñu. gisuma mais mais président ci ñoom président bu ne bëreet da ngay xam ni kii njiit la signe la il faut que sénégalais yi xam ni signe la du wax nee naa la sa doom boo ko juree boo dee boroom xel boo ko seetloo di nga xam xale bi fu mu jëm. njiitu réew su toogee wax rek nga xam ni kii njiitu réew la. li leen président Macky Sall ëppalee dafa bari fiis loolu nga jàpp daal. mooy. xam nga Afrique dañu doy waar. président africain. bëgguñu kenn jiite leen. ah dañu bëgg ay troisième mandat nag. waa déglu ma ma wax la rek du troisième ñun deuxième lañu jëm. Macky Sall président tous les sénégalais bu ma ne bu bu bu déposé wul deuxième mandat bi constitution bi wax. de la xee laa koy yóbbu. man maa koy porte plainte man Coura Macky man. parce que dañ ko soxla ci réew mi. ah mais mais keneen kay si réew mi barina na ay ay doomu aadama yu mën baaxuñu ci réew mi. fils li may wax ni njëriñu Sénégal la 2005 la am nationalité américain jur fa ay doom macha allah fa tabarakallah tëdd fa nag bu ma neexee toog fa du ma ñëw. mais dama xam ni bu Sénégal deful attention ci ku nuy jox Sénégal bii billaahi wallaahi ku ma toogal dinaa la ko wax bindal nga denc. Mhm. Sénégal yi dina mhm. yuuxu. Mhm. d'accord dafa am yoo xam ni bu ko nit di wax di wane Sonko daf ñuy won boppam actuellement ni dara ñoru ko Sonko bu yoroon réew mi tey maar dem si mais nii lay waxee ñun. nan lay waxee ñun. nii muy waxee nii xool ko barki démb xas na. militaire yi nga xam ni ku ñëw fii nga leen di fekk ku dem baleen fi gendarme ku ñëw fii nga leen di fekk état booy dem baleen fi réew mi. mais dafa wax gis-gisam rek xanaa. mais dafa am yoo xam ni signe booy joxe la pour ñu xam ni kii kat bu toogee ci réew mi jàmm dinañu ko am ñun ay pétrole yi ñuy wax ak gaz yi ñuy wax ak ñun yooyu safunu xam nga lu nu ñor. Hmm. sunu jàmm ji nga am nga jóge sa kër liberté gusooy gendarme. xeexu nu nga ñëw jël ma ndànk nu def sunuy mango def sunuy jus lekk ah, waaw bi xam nga loolu ci démocratie la bokk waaw tey demal ma fii rek Mali gii nu jege mm-hmm. mbaa nga dem fii Côte li fi xewoon ñun nu yooyu ah, Liberia Sonko yooyu lay woote mais dafa bëgg armée bi jël seen responsabilité armée bi li ñu armée bi mm-hmm. ñoo gën a tegu Sonko ci àddina Sonko yow armée bi ñoo lay ñoo lay ñoo yor sa sécurité yor sécurité Sénégal gépp ku leen xas jaam nga. la ku leen wax lu ñaaw doo gor. ñi ngi ci àll bi li tax rebelle yi engagé wuñu def nu ay bomb taal sénégalais yi Casamance ak Sénégal yëpp laa wax de mu yëppooy Sénégal mais militaires yi la ñi ngi ci àll bi du lekk. Mm-hmm. du ñu sangu. d'accord. il faut que jox ñooñu cër. mais yaa wax sànq waxu vidéo da nga yor ay vidéo vidéo lan vidéo Adji Sarr. sonko wala vidéo sonko man dama gis euh, vidéo sonko fu muy summee kalson. ah sonko li ko dal nii dafa metti ma waxaat ko sénégalais yi da gis vidéo boo xam moom moom daal moom ci gàttal. moom sonko. sonko xam na li may wax. yow loolu sonko bu la si porté plainte doo am problème. sonko na ma porte plainte. sonko na ma porte plainte. bu la laajoon preuve di nga ko génne. ma na ma sonko mii porte plainte sonko moom ko mu ngi ko woyof gaño na ma porte plainte. xanaa kon réew mi yëpp porte plainte Sonko. ah mais réew mi kat lii li nga wax ni waxuñu ko yow yaa ko wax. ah yaa ni gis nga. Ah. daal moom ah. man du ma ci barki bi dama ni. Uh-huh. Sonko ngi nii di ma dégg. na ma porte plainte. su fekkee ni moom am na association. Hmm. jëlal ab aji avocat yu doy. Ah, loolu la na ay avocat na gën a bari ñi mu ko seqal la tax na gën a bari. <laughs> ay barki yonent bi. na gën a bari. xam nga problème mu affaire. Adji Sarr Adji Sarr euh, dafa bari ñu koy xeexal te jubóowuñu. waaw Françoise bari ay tante. bari ñu koy xeexal te jubóowuñu. lu nekk laxu si biir. dara comme wala dara xaalis. si sante la rek ak euh, xeexee turu Adji pour am ci dara lii mooy wax ji. <laughs> ma wax ko sans limite. ku ci nekk ba nga tudd turu aji saar pour am ci xaalis. kon dil bi ñu doon wax ba du mujj nekk. dil lay doon. dilu aji saar sonko la maanaam. non aji saar sonko. tuuma bi loolu nee naa leen yàlla aji saar sonko te yàlla day acté aji saar sonko ñooy wax dëgg bi ci kanamu juge. ñun li ñuy gis ci vidéo gis nañ ko mais ñun amuñu pour wax. ban ñan vidéo nga gis. parce que yow yow yow yooyu loolu ëpp na. ah Sonko ak ajisaar kooku beneen projet la bokkul ak ñiy dimbali ajisaar bëgg ci dara di yuuxu pour ñu jox leen alal tubaab yi dégg leen ak association yu mag yi ñu ciy lekk nan bàyyi doomu jàmbur bi kii xale la mook sama caat ñoo maase 2002 mu jooy mu ne dan ma siif nanu ko xeexal ci sunu dignité ban ci bëgg dërëm moo tax ñuy reyante di saagante ci suuf keroog ba aji saar yuuxoo man rek maa génn place de l'Obélisque yow man kese maa taxaw place de l'Obélisque hmm. jigéen ñëpp daw gisuma kenn te médiatiser naa ko xam nga ñaati presse ñoo fa nekkoon ay de patara leen woo 32 presse 32 ñu woote jigéen ñëpp daw. nga taxaw riposte. ma taxaw wax ne justice na dimbali femme d'africaine yi bu ñu mm. yuuxoo. Mm. nañ ñu gaaw dimbali. atte ko mu gaaw pour nga xam ni dootu dootuñu violer xale yi ci biir kër yi. Adji Sarr moom rek moo yuuxu d' accord xam bu ñu gën a avancé tuuti waxtaan bi dañuy dugg ci euh, ki nga xamante ni moom mooy Gabriel Kane mhm. gis ngeen mu def sortie donc du ñàkk sax yéen koy seetaan fi nga xamante ni moom mooy sans limite di indi ay leeral ci ministre euh, de la femme mi nga xamante ni moom mooy Ndeye Saly Dieng mhm. euh, noo gisee wax jooju seen diggante ñoom ñaar waaw damay bëgg wax lenn rek ci Gabriel Kane mhm. mu def ndànk mun na def ndànk booy dugg ci dara hmm. doo ci duggee ak fitna ak ay saaga hmm. ndey sali elman du yoon du respe ndey sali jëng ndey sali jëng la tudd hmm. gabriel gabriel Ndeye Saly Dieng yàlla jox ko ndombal tànk loo xamante ne ni amul jigéen bu ko jéppi xanaa koo xamante ne ni sa xol dafa taab wala nga iñaane ko palaas bi mu toog man duma raay ginnaawu kenn fii ci Sénégal ndax kenn yoruma Gabrielle Kane mm-hmm. dafay doog a ñëw ñun dañu ko fi jiitu mais moom nag foo ne ay preuve am ndax mi ngi jàppale ñoo mooy nga joxe social nga médiatiser ko d'accord rafet na trop dama ci kontaan trop di ko ñaanal yàlla mu yokk mm-hmm. ñun boobu ba léegi ñu ngi koy def bu nu gisee ku mel ni Gabriel ñëw di def daf nuy neex ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi ci diaspora bi di wax rekk te defuñu mais Gabriel mi ngi def mais dafa ñëw di songu état état bi dafa lâche Ndeye Saly day fen c'est pas normal Gabrielle Kane dalal dafa am yooyu xam ni boo ko bëggee ci réew mi dangay am respect ci doomu aadama yi Ndeye Saly Dieng sa ministre la bu la nee Ndeye Saly ci boppam mooma ni mhm. man waxuma Gabrielle Kane dama yori doom dama yori jëkkër te man kura dama yor doom dama yor jëkkër su ma ko waxul su ma ko waxul sax xam na ko ndax li may def ci aji saar dama ko wax Gabrielle mhm. ndax nee na ma ndax aji Sarr rek la ñu violé ci réew mi kam la wax loolu Ndeye Saly Dieng moo ma ko wax ni ma ñi ñi viole ci réew mii bari na te ñooñu ñëpp damay def ci ñoom damay wax ak ñoom maay seen ministre. ah mais xale bi ñu bi ñu tuumaal viol. ci affaire yi sitoor bi. ma nga ca. non mais daf ci yéex a ñëw dafa déclaré ni euh, dugal na ci loxoom famille bi weddi ko bi ñu ko fay weddee euh, Gabriel kan wax moom ci la profité di yónni ñaari nit ñu dem joxe 200000 te nee na si Gabriel Kane si kàddoom. Mhm. ba ñu yóbboo 200000 sax nangu ñu préciser ni euh, madame la ministre moom moo leen yónni. ma ni. 200000 mhm. yi sax bari na. Mhm. Ndeye Saly Dieng dafa toog ca xale bu am 16 benn yaayam dañu ko waroon a jàpp xale ba 16 ans xale waru ko liggéey bay dem ci góor number one bu doon Amérique kaka wutal liggéey bi kay bindalaate kooku noonu fa toog dañu koy jàpp dañuy jàpp yaayam dañuy jàpp siton moomu ko liggéeyloo 16 ans majeurul mais yaayu xale bi. waaw mbindaanu euh, maanaam jànku euh, soxna si la woon de xam nga lool jànku kan ci. Euh, jànku Ndeye Sale xam nga loolu moom Ndeye Sale def nañ huit ans. yaayu xale bi yaayu xale bu jigéen xale bi. Hmm. seize ans la am warul liggéey majeurul. waaw hmm. ah, loolu moom d'accord nañ ci. bay dem ci góor bu ko mag ba mu war ko violer. Hmm. number one. Ndeye Sali Dieng bu yëkkatee benn dërëm joxe ko ci sax. dañ ko war a sant seen fot la ñoom. non mais liggéeyam lay def parce que loolu Sénégal nañ bàyyi loolu. yaayam da doon liggéey doomam am 16 ans. Mhm. pour lan mu koy bàyyi muy dem di liggéey ci góor. d'accord. Mhm. ba mu koy siif. Mhm. ah ci li ñu wax. Ndeye Saly Dieng li mu ci mën a def mi ngi koy def mais buñ ko ci saaga. Gabrielle ah man. awma dara lu ma koy contre dama koy ñaanal lii muy def mu continuer mais dama bëgg muy defar waxam saa su jógee am na beneen bu ma ko déggoon mu ne état jàppalewu ko état def ko lii man damay indi aide mhm. sama aide bi ma mujjee indi fay naa trois millions sept cent meroon nag xam nga ñun danu bëgg lu yomb mhm. dañuy bëgg indi sunu conteneur ñu génneel ñu ko free mais dafa am procédure booy jaar pour ndey sali jaarale ko finance ñoom ñu fayal la ko mu génn parce que edd la Gabriel bu ma woowee man dinaa ko wax hmm. mais toog di saaga sa ministre bu jigéen mën na wax ak moom mais day fen yooyu rafetul fii ñépp a vulgaire ñépp mën a génn saaga nii nag buñ ko ko bàyyee dina dem ba ba mu ëpp muy wax yu ëpp te mi ngi ci voix bu baax voix boobu mu nekk man dama koy conseiller mhm. en tant que magam mhm. mu continuer ci voix bi mhm. bu nu ko ko fayalul sax mu doxal